combat bi bëri yàqu noonu ah yow pare naa ma ba léegi ah Thank you. ndaysaan dox ci diggante Kayta Kara ndaysaan Kayta Kara Kayta Kara ak Fils Sam Sam arbitre bi sifflé na Kayta Kara moo la woon ginnaaw ngembo ngemb lu bula li Sam Sam moo la lool ngembo ngemb xonq li ndaysaan Kayta Kara fils de Samsam ndaysaan ñu ngi lewaatoo ñoom ñaari xale yi Kayta Kara sànni na Kayta Kara sànni na Kayta Kara sànni na dooraat na moom Kayta Kara fils de Samsam mu ngi koy déglu dooraat na moom Kayta Kara xeex ba déclenché wu na ña ngay xeex Kayta Kara fils de Samsam Kayta Kara dooraat na ndaysaan daw nañ jàppante Sam Sam Kaïré Kira daw na jëli ci geño waaye amul ngem tegal na ko bañ na daan na ko Sam Sam daan na Kaïré Kira Siteu Sam Sam daan na Kaïré Kira da koo tak ndeysaan da koo tak yàlla ko ba ci kaw wala da koo tak dóor ko ci moom Kaïré Kira ndeysaan daan na Fils de Sam